mbëggeel mooy loo xamante ne kenn mënu ko nat mooy fekk lu wow mu tooyloo ko fekk fu dara xajul mu xajal fa dara. lépp lépp. I love you. Ibrahima Khalil Thiam li ma bëgg a xam lenn doomu la dangaa mës a seq dara yàgg sa cousine. capable na te mën ay fen nag de. comment est-ce que tu as pu dem ci sa papa wax ko loo xamante ni du dëgg. xaj bu dee bi nga doon fi do fi enjoy dama ni sama dom dañ koy mur ba paré man amna fu ma mëna abal sama ancien appartement bi hola maa ngi lay woowaat ñu fanaan jam ci dakaru tay bëgg délu tay ay ay. e doy naa. gis nga ni ma doon kar karé nonu la lay mal malé ba mu neex. mal malé mi mais. waaye xam nga ni tay ji bo fi joggé yow di nga wut kër. yow lay eh. waxal eh. eh ba ba.